نورد بابون ولا باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن آه، من باب ولا باب صفة العمل لي بنت لبلي برلل ملوكانو جف باب صفة العمل لي بنت لبلي برلل ملوكانو جف fi salawaati ci julli yi almafruudati julli yére yu ñu farataal wamaa ak la nga xam ne lépp la nga xam ne yettasilu dana jokk biyaa ci julli yooya min an nawaafili daala moom ay naafila la wa sunan ak ay sunna yu mel ni julli witre yu mel ni julli korité yu mel ni julli tabaski julli baaw naan ak yu ni mel kon bunt bi loolu lay jàngal waaw julli ñu farata boo demee ci charxu dawa alfawakihu dawaani ci commencement bi mm-hmm. kii du ko indi parce que moom day ñëw rek mbëmbëstal mm-hmm. waaye mu ngi fay leeral di lim yi nga xam ne ñooy farataay julli yi mm-hmm. mu ne waalam ci chara fawakihu dawaani mu ne ne farataay julli yi sab'a ashrat fukk ak juróom-ñaar ci moom yi mu indi waaye boo demee ci ibnu ashir waxna lu wuté ñoom kon borom xam nga dañuy wuté ci ni ñuy limé farata julli mom bam koy lim mu ne fukk ak juróom-ñaari farata la ba ci ñëk an niyatu mooy yéene wa takbiratu lihram xaraami ak kabaaru xarmal wal qiyaamu laha ak taxawaay bi ànd ak kabaaru xarmal nga am ñett wal fatiha wal qiyaamu laha nga am juróom fatiha ak taxawaay wal rukuu wal qiyaamu laha nga am juróom-ñaar rukuu ak taxawaay ba ak taxawaay ba ngay rukuu war rafu minhu mm-hmm. ak jóge ca rukoo ba mm-hmm. bu juróom-ñett mm-hmm. war sujuudu wa rafu minhu ak sujood ba ak taxawaay ba ànd ak sujood maanaam jugee ci sujood ba nga am fukk yaakaar na wal juluusu bayna sajdatayni ak toog bi ngay toog ci diggante ñaari sujood yi moom laa doon wax keroog ma ne ñi nga xam ne dañoo wax ne duñu jële ci sunna kan moo leen wax ne boo sujootee mhm. dangaa war a toogaat mhm. door a sujootaat mhm. loolu fan nga koy fekk ci alxuraan aussi fan nga koy fekk ci alxuraan doo ko maanaam yow ci alxuraan doo ko fekk lu lay wax ne boo sujootee da ngaa war a ñëwaat toogaat war a demaat sujoot doo ko fekk léegi lan moo boo sujootee doo def nii rek ñaari sujoot yi noonu noonu ko kan moo la wax ñaari moo tax mënta nekk mukk ci àdduna nga ne da ngay jëlee ci alxuraan kese boo ko defee moom doo am diine mm-hmm. doo am lislaam beneen diine nga yor waaye du diine lislaam mm-hmm. waaw kon mm-hmm. mu ne was was suj wal juluusu ak toogaay ba bay na sajdatayni ci diggante ñaari sujjóot yi toogaay boobu farata la boo ko bàyyee si julli màbb na wal juluusu bi qadri salaami ak bi ngay sëlmal toogaay boobu nga toog parce que mënoon ngaa taxaw sëlmal wala nga tëdd sëlmal kan moo la wax da ngay toog sëlmal loolu ci na nga koy fekk doo ko fekk mukk boobu tamit toogaay boobu noonu nga naan asalaamaaleykum qadre salaam boobu rek la wax loolu mooy farata bi boo ko bàyyi woon sa julli yàqu boo taxawoon sëlmal sa julli yàqu wasalaamu jimmi asalaamaaleykum boobu sax moom tamit farata la wa tumaniinatu julli gi nga boole ci dal ak tumaniina mooy nga dal loolu tamit ci farata yi la bokk al i'tidaal mooy sa cër yi yemoo bañ a sëgg bañ a weng bañ a nàngam loolu tamit ca kii ba la bokk moo tax am na ñoo xam ne nii boo leen gisee ñuy julli <laughs> da ngay yéemu ci yàlla julli goo xam ne ni boo siggee ci rukoo bi nga naan sami allahu liman hamida fa ngay demee rukoo sujooti benn la mm-hmm. kooku julleem baaxul te pourtant xamu ko mm-hmm. mu ngi julli julli goo xam ne dara baaxu parce que les farata boo xam ne boo ko bàyyee si julli yàqu mm-hmm. waaw ne ñu julli wokkatu tourné gauche tourné droite tartibul adaa yi toftale joox ki mooy li ngay def nga def ko ci benn waxtu nga def ko comme nañ ko waxoon al fawru ak al mm-hmm. julli gi nga defandoo ko ci benn waxtu mm-hmm. waaw bañ koo dagg-daggee mm-hmm. wa niyatu iqtidaa il mamuum yi bokk na ca farata ya ci kii nekk mamuum mu yéene roy ci imaamam loolu farata lu bëri ci nit ñi xamuñu duñ yéene mukk roy seen imaam ñoom daal dañu ñëw kabaar pare nañ te yéene boobu noonu dafa bokk ci farata pour mamuum bi julli mën a baax kon moom boole na ko ci wa niyatu iqtidaa il maamum kon yooyu mooy fukk ak juróom ñaar yoo xam ne ni borom alfawaaki ak dawaani andi na ko léegi nag bu ñu waxee yéene moom lay wax mu ne bu ñu waxee yéene mooy nga yéene julli bi ci jëmmi boppam am na ñoo xam ne julli rek la ñu yéene waaye julli gi ngay julli bu dee timis la da nga koo war a maanaam ne timis nga fas yéene julli bu dee tàkkusaan nga def précision boobu noonu dafa am solo mhm. parce que loolu mooy tàqale julli yi mhm. kon mhm. Euh, loolu la doon wax mu ne wal ihraamu mu tàmbale nag wal ihraamu xarmal bu ñu wax al mooy kabaaru xarmal mooy li lay dugal ci julli gi li lay dugal ci julli gi moom lañu tuddee al ihraamu wal ihraamu xarmal fi salaati julli mooy lan moo xam jullik farata la moo xam jullik sunna moo xam jullik naafila la mm-hmm. loolu ñuy tuddee xaramal faaw nga def mm-hmm. an taqula mooy nga wax lan allahu akbar yàlla aji màggal mm-hmm. mu ne nag laa yujisiwu du doy gayru hadihi alkalima lu dul bile baat baat boobu rek a ciy doy boo waxoon allahu alazim wala al azizul akbaru yooyu yëpp dara du ci baax du doy kon lay day mooy allahu akbar kese mm-hmm. beneen baat boo mën a indi ak noo ko mën a waxee doy mm-hmm. léegi nag koo xam ne moom mënta wax jàngul arab xamul lan lañ mënta wax allahu akbar lañ ko wax mooy mu dem wuti ko ko waaye léegi nekk na foo xam ne mënu koo jàngee nan lay jullee mm-hmm. man ku mënta wax allahu akbar kooku waa nan lay jullee am ñu ne bu waa allahu akbar waa daf koy rot comme ki nga xam ne mënta jàng fatiha maanaam bu boobaa mun na wax leneen lim mën comme mën ta wax laa ba bu fekkee nag am na fu mu ko mën a jàngee force dafa war dem jàngi bu ko mënul nag ñu ne daf koy rot waaye lu jafe la ki nga xam ne tamit dafa war a jàng faatiha te mënul faatiha am na ñu ne bu boobaa daf koy rot donte ñëw na ci xadis mu wax ne laa la salaata liman lam yaqra al-faatiha waaye kii moom mënu koo jàng dafa am ngàntal mën koo jàng te amul ko mën a jàng mhm. ñu ne kon bu boobaa la muy def rek mooy yeneen farata yi maanaam bu taxawee dem rukon yi jógee ci sujjóot léegi mel na moom lay wax ne wal ihraamu xarmal kabaaru xarmal fi salaati ci julli an taqula mooy nga wax allahu akbar yàlla aji màggala mu ne laa yujizihu du doy xayru hadihi alkalimati li dul bi le baat baat boobu rek moo ci doy mu ne wa tarfau dana yëkkati wala da nga yëkkati rësaka sa bopp bi wala yadayka yadayka wa tarfau da nga yëkkati yadayka sa ñaari loxo mm-hmm. xadwa man ki bayka ba tolloo ak sa ñaari mm-hmm. euh, sa ñaari mbagg yi mm-hmm. sa ñaari mbagg yi kabaaru xarmal boobu nag boo koy def moom la wax ne bu fekkee ne maanaam moog yéene bi dañoo war a ànd kabaaru xarmal moog yéene ñooy lënkaloo moo tax ñuy wax ne wan wi salaata bayna hamzatin waraa bilaa taaxuri maanaam ci diggante hamza bi mooy ah ah ak ruji baru allahu akbar foofu noonu la yéene bi di duggee wan wi wan wi salaata yéeneel julli bayna hamzatin ci diggante hamzatu allahu gi ak warain ak raawu akbar ga bilaa taaxurin bu mu bu mu am yéexlante bu am bu mu am yéexlante ñoom ñaar waaw bu mu am yéexlante moom lay wax boo xoolee borom salaam mu ngi koy wax ne wa tabtulu salaatu bi taxiri niyati an takbirati lihram julli gi day yàqu bu fekkee da ngaa yéex a yéene maanaam da kabar xam na ba pare door a yéene kabar xam na bi ci biir lay dugg kon mutlaqan bu fekkee da ngaa kabar xam na ba pare maanaam door a ne man maa ngi ci sa xol nga fas ne man maa ngi julli timis xamal ne kon te loolu day dal ñu bëri mm-hmm. maanaam bi nga naan allahu akbar foofu teewlu bu mat nga xalaat ne timis moom ngay yéene foofu nag bu fekkee ne nag nga ñëw ren allahu rek léegi sa xel door a dem ci timis xamal ne foofu moom moo xam lu néew la moo xam nangam la wala yéene bi moo jiitu bu boobaa xamal ne sa julli day yàqu maanaam ñoom ñax dañoo war a tolloo moom lay wax ne wa tabtulu day yàqu asalaatu julli bi taxiiri niya mm-hmm. ci yéexe yéene gi mm-hmm. gi laa wax jiitu waaye yéexe yéene an takbiratil ihraami walis kabaor xarman mutlaqan moo xam néew moo xam bëriwul mm-hmm. nag wa ba tey day yàqu bi sabqiha ci jiituk yéene lahaa ñeel kabaar xalmal bi in kasura bu mhm. fekkee dafa bëri nit ki dafa yéene ne dafay julli timis mhm. yéene na ko mu toog lu yàgg door a julli timis mhm. bu ñëwee kabaar xalmal rek kon bu waa julli gi day waaye bu fekkee daf koo yéene doxee fee rek ñëw dugg ci minbar bi kabaar te foofu fekkee yéenewul yéene bi sorewut ak kii bi kon bu waa ñu ko amul problème kon bu waa ñu ko amul problème waaw ñaar yooyu loolu mooy seen wuute bi bu fekkee ne yéene bi dafa mujj kabaaru xarmal bi loolu moom yàqul abadan mutlaqan bu fekkee nag yéene bi dafa jiitu dañuy xool yàgg na wala yàggul bu fekkee yàggul ñu ne la kon baax na bu fekkee nag dafa yàgg ñu ne la kon comme yéene woon nga lu yàgg il faut nga kabaaral xarmal boole ko yéene waaw moom la Cheikh Khalil di wax ne wa batalat bi sabqiha in kasur maanaam yàqu na moom julli ga bi sabqiha ci jiitug yéene in kasur bu fekkee da nga def lu yàgg door a wa illa bu fekkee bi ko defee yàggul da ngaa yéene tuuti rek ñëw kabaar xam mu ne fa xilaafu loolu borom xam-xam yi dañ caa wute mm-hmm. mu ne wa tarfaw da nga yëkkati yadayka sa ñaari loxo mm-hmm. xadwa man kibay ba tolloog sa ñaari mbagg yi mm-hmm. foofu tamit borom xam yi dañuy wax ñenn ñi ne ba tolloog sa ñaari mbagg yi ñenn ñi ne ba tolloog sa dënn am ñu ne ba tolloog sa nopp yi lu mu ci mën ci doon yooyu yëpp rot na aw duuna zalika wala yu yées ñaari mbagg yi mooy lu tolloog dënn bi loo xam ne dafa yées ñaari mbagg yi su ma taqaraw boo ko defee nga daal di foofu nag def nga kabar xarmal yéene nga hmm. su ma taqaraw topp nga jàng nag hmm. léegi looy jàng moom lay wax ne fa in kunta boo nekkee fi subhi hmm. ci jullik suba xalaata nga jàng jëhran ci biral bu fekkee jullik suba nga nekk kon waa nga jàng li nga xam ne mooy biral léegi nag foofu noonu boo kabaare xarmal ba pare njëkk ngay jàng euh, ci mazhab imam malik dañuy wax ne foofu sib nañ fa ngay tàqale ci diggante kabaaru xarmal bi bi nga kabaare xarmal ba pare ak fi ngay jàngee sib nañ nga fay ñaan wala nga fay def leneen lu bokkut ak dem directement ci jàngi sib nga wax waaw loolu dañ koo sib moom lay wax sib nañ nga def ko moom la wax summa baada takbiratil ihram taqraw min gayri faslin baynahuma bi tasbin aw duain aw gayri dalik wa hada ahadu almawaadi alladi yukrahu fiha adduaa fi salaat dafa am ay bërëb yoo xam ne ci biir julli dañ faa sib ku fa ñaan daf caa bokk boo kabaare xarmal ci mazhab imam Malik nag la boo kabaare xarmal ba pare nga nga nga nga nga nekk fa di ñaan léegi nag mu wuuteeg yeneen mazahib bi da ngay fekk ay ñaan yoo xamante ne dafa rot ci ay xadis nii wane ne maanaam boo kabaare xarmal njëkk ngay jàng war ngaa def ñaan boobu nga xam ne moom la ñu tuddee du'a istiftitah maanaam ñaan ak ubbee kon loolu Euh, ñi xamee ko noonu dafa am wuute ci baynal madahib waaye madhab imam malik moom lii lañ jàngal euh, fa kunta boo nekkee fi subhi ci jullik suba xaraata jàngal jëhran nga jàng jëhran ci biral bi ummil qur'aani ci ndey fatiha ummul qur'aan li tax ñu tuddee ko ko ngir ne ndey lépp lëf mooy la gën a màgg mm-hmm. ca loola mooy la gën a sell ca loola mm-hmm. waaw dee nañ ko tamit fatihatul kitab moom lii nga xamante ne ngir lim ubbee téere bi mm-hmm. ngir lim ubbee téere bi mm-hmm. te yonentam bi dafa wax ne kullu salaatin lam yuqra fiha bi ummi alqurani fa huwa xidaajun xidaajun xidaaj mm-hmm. mu ne lépp bépp julli boo xam ne dañ koo dañ koo def te jànguñ ci lii di fatiha mu ne loola matul xidaaj mooy mbos koo xam ne dafa jur te doom ji matul kon julli ga matul waaw من لا تستفتح بالأب بالأبينك ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن تندي فاتح ويجان فاتح من بالأب لين قمنا ما بسم الله الرحمن الرحيم ولا في سورة دجاجين صار التي صار وما قمنا بعدها نكنا تجنا فاتح لولو مونغي فك تي تيري مذهب امام مالك رحمه الله تعالى موقف جليك بيرل moo xam jullit yelu la moo xam imaam nga moo xam kenn nga moo xam ma'muum nga parce que ma'muum mën naa jàng comme nim la teree tamit jàng basmala mm-hmm. noonu la la teree tamit jàng aoudu billahi min ashaytaan arrajim mm-hmm. yii nag buñ koy wax ci julli farata lañ wax waaye bu dee nawaafil yi moom dagan na ci madhab imam malik mm-hmm. moom la Cheikh Khalil di wax ne wa jaazat ka taawudin bi naflin wa kurhan bi fard bu dee naafila la mën ngaa wax bismillahi rahmaani rahim dagan na mën ngaa wax aoudu billahi min ashaytaan arrajim waaye nag sib nañ lii di bismillahi rahmaani rahim ak lii di aoudu billahi min cheytaan rajim ci jullit farata léegi foofu noonu dafa am ay ahadis yu rot yu bari yoo xam ne nii day wane ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabatul kiram buñ daan julli daawuñ wax bismillahi rahmaani rahim maanaam daawuñ leen dégg ñuy wax bismillahi rahmaani rahim boobu ci kaw rot na ci ay ahadis yoo xam ne ñëw na ci sa muslim di wane ne yonent bi saa salaam wala sahaaba bi daan julli duñ laan deen dégg ñuy wax bisimilah rahmaani rahiim ci kaw léegi borom xam-xam dañoo wuute ci bisimilah rahmaani rahiim ndax dañ koo war a wax waruñ koo wax ci jullit farata ñenn ñi ne bokkul ci fatiha bokkul ci saar yi kon waruñ koo jàng ñenn lu mel ni ashafii ñoom dañoo wax ne lu mel ni madhab ahmed dañuy wax ne waruñ koo jàng ku mel ni ashafii dañuy wax ne fatiha bisimilah rahmaani ci fatiha hmm. kon borom xam-xam yi dañoo wuute léegi nag wuute boobu noonu boo demee ci alfawaaki daf koy wax boobu pour nga génn ci wuute boobu noonu li gën a dëgër mooy nga jàng bisimilah rahmaani rahim mm-hmm. donte da nga koy jàng ci suuf mm-hmm. comme yonentam bi saa dañuy wax ne ak saxaaba yi daawuñu ko jàng waaye nga jàng ko ci suuf am na ñuy saxal ne jàng gi ci suuf lañ ko daan jàng mm-hmm. ba pare door a yëkkati alhamdulilahi rabbil alamin kon li nga xam ne moo gën a dëgër te moo gën a mooy nga jàng bisimilah rahmaani parce que dañuy wax ne ci la farata la ci la bokk bu fekkee ci la bokk kon boko baye sa julli baaxul te ñeneen ñi wax yëpp dañuy wax ne dañ ko sib rek de kon nga jàng bismillahir rahmanir rahim jàng ko ci suuf yëkkati ci kaw wala nga jàng ci kaw luñ ci mën dina ala kulli xaalin booba jàng gi dal moy li gëna a wa moy li gëna a nga génn ci khilaf bobu nonu nga xamne amna mune wala daal fa ida qulta boo waxee wala daalin wala daalin faqul waxal amin amin in kunta nam nekk nga wax daka yow dong mm-hmm. aw xalfa imaamin wala ci ginnaaw imaam mm-hmm. xalfa imaam ci ginnaaw imaam moom mm-hmm. dafa fekk ne li gën a bari rek nit buy julli ci ginnaaw imaamam lay nekk waaye boo nekkoon ci kanam boo nekkoon ci wetam ak boo nekkoon ci càmm ñëpp benn waaw xalfa imaam boobu maanaam imaam nga ab di la jiite rek nga ci nam waaye namut ci ginnaaw comme niñ ko namee wa tux fiiha da koy suufeel nag mooy da koy da koy wax ndànk amin googu noonu ci madame Malick booy wax amin doo ko wax ci kaw دونك وقت سوف ولا يقول دو وخ امين غوغو الامام امام فيما جلا خا خنا جهار بيرل نا في تي موم امام بوي بيرل بو وخي ولا ضالين مون دو وخ امين ويقول هذا نكو وخ موم امام فيما جلا خا خنا اثر يلونا في تي موم وفي قوله نك نتي وخ امام اياها امين في الجهر تي بيرل اختلاف اك ووتي لولا بروم خم خمي دنجا ووتي ني نعم امام ndax warna wax amin mm -hmm. bu fekke da fay biral wala waru ko wax lolou ikhtilaf xam nga ci ginaaw daf la wax ni wala yaquluha al imam fi ma jahala imam buy biral du wax amin waye nak dana wax amin ci julli go xamne da fay yalu legi nak mu ñewat delu ci wat ci lam waxon ne imam du wax amin mu ne nak lolou sax dañ caa am wute ndax imam bu biralee dafa war a wax amin wala do wax amin lolou bo deme ci yenen mazahib dañ ñewane imam ne imaam dafa war wax amin wa wa idha qala al imam amin fa aminu bu imam waxe amin na ngeen wax amin motax ci yenn Euh, julli yi nga gis ni nit ñi bu imaam waxee amin ba pare la ñuy door a mm-hmm. yooyu yëpp rot na ci xadis euh, kon loolu la wax ne wa fi qawlihi nekk na ci wax ak imaam iyaaha amin fil jahri ci bilig biral ixtilaafun ak wuute loolu mooy fiq kon yooyu nga xam ne ay wuute la yoo xam ne ni ay ijtihaad la yooyu jarul di di nit ñi di ci xëccoo wala nit ci kóotal mm-hmm. ba ثم تقرأ توبنا جانغ سورة سار من الطوال من طوال المفصل تكيتي وي قدل مفصل من طوال المفصل توبتي وي قد وي قد مفصل لول نك نكو واخé موي لاكو دالé ci hujurat euh, ba ci suratul nas wala بتي عبس ba ci abasa bo ba ci abasa buñu waxé digg bi moy يغتي مفصل مانام قصار مفصل اك وسط مفصل دا ام الطوال مفصل طوال بي موي لاكو دالي سوره الحجرات با تي عبس ديغ بي موي عبس با تي والضحى يغتي نا موي لاكو دالي تي والضحى با تي ناس كون تي جوليك نيك موتاخ مونلا بوبا nga jang sar yi nga xamni من طوال المفصل وان كان لم نكن اطول دي غنا من ذلك تي فحسن ba tey luñ sopp la lu rafet la maanaam boo demee nga jàngi ca bàqara wala nga jàngi feneen boobaa tamit loolu kenn du la ko tere hmm. waaw loolu luñ sopp la ba tey mu ne wa tajharu da nga biral bi qiraatiha ci jàng suba bu dee jullit suba da ngay biral bi qiraat ah waaw fa xasanul rafet la bi qadr waaw kay dem nekk na at wala di gën a gudd min daalika ci loolu hmm. fa lu rafet la hmm. bi qadri taxliisi ci kem mir miral kem mbir mi la maanaam lim la bëgg a wax dalaa waxoon nga jàng la ko dalee ci xiwaalul mu fasal mu ne boo demee jàng lu gën a gudd loolu maanaam nga yéeg ci saal yi gën a kawe jàng ko sax mu ne lu mu gudd gudd ba tay tamit def nga lu rafet mu ne nag bi xaddari taxlise ci kem mbir mi la mbir mi la mooy jaxasoo lëndëm gi ak leer gi maanaam boo demee ba suba gi commencé leer noonu moo tax mu ne ci temps boobu rek mu ngi dépendre ci waxtu wi mm-hmm. maanaam bu fekkee dafa nar a gudd ba waxtu wi nar a génn boobaa nag moom da ngay da ngay gàttal julli ga moom leen wax ne bi qadri taxlis ci kem mir mira man la ko war a fi di waxee bu ñu waxee ak taxlis mu ne ixtilaatu zulmati bil bayaad maanaam lëndëm gi bu demee ba commencé leer gi commencé jaxasoog lëndëm gi rek mu commencé leer bët di set falaa yutilu xatta yabloga al isfa diggante bi bët di set si commencé leer loolu ñu ak taxlis des na tuuti lëndëm leer gaa ngi ñëw waaye dese na tuuti lëndëm mhm. léegi nag bu naree jëm ba set wecc boobu mhm. nag bul yàggal guddi gi parce que waa waxtu yi day dem mhm. bul yàggal julli gi ndax te waxtu yi day dem moo tax mu ne bi qadri ci kem mbir miral ga rek wa tajharu bi xiraatiyaa ci jàng ko moom jullik suba googu fa ida tammati bu ma tee asuratu saar wa kabbarta nga kabbar fin xitaatika ci sa sippeeku li rukoo yi jëm ci rukoo fa tumakkina nga saxal yadayka sa ñaari loxo min rukbatika rukbatayka tukkee ci sa ñaari batiwoom watu sawi nga yemale zahraka sa ginnaaw gi mustawiyan mooy aji yemoo wala tarfaw doo yëkkati rësaka sa bopp bi ba mel ni ak ginaar guy yuqeelu wala tutatihu doo ko njett tamit ba mel ni mbaam ni muy def jàngoon nañ ci ginnaaw xeyra mu nakkisin wala mu tati in law foofu بودلوات إسراف غير منكسين دفع وغنم ولا مطئتين له كي ين شرائع لنا غير منكسين موي غير يكتي سبب ين سبين كيف لنا غير منكسين يكتي سبب بمن لبام ولا مطئتين دين غير يقل وين سفان بلا صح ورما كي ين شرائع لمن لمعين التلاميذ ديوانا غير منكسين دون غير يقل سبب بمن لجنار ولا مطئتين له دين غير يسجل بمن لبام ين ين شرائع لنا فيديكو سحنا غير منكسين wala mu tatiin lahu ñoo bokk benn maanaa dafa ñëw di ko firi rek mm-hmm. waaye li gën a wér mooy xayra mu nakki sin firi mm-hmm. nekkul nga yëkkati sa bopp bi ba mel mbaam mm-hmm. parce naka nakasa day firi njett jëmale suuf moo tax foofu borom xam ne dañu wute ci firi kon foofu noonu boo rukooyee na nga fexe ba sa ginnaaw gi mag ñi dañ naa wax ne nga sëgg sëggaay boo xam ne nii même buñ ci sotti woon ndox sa ndox ma du tuur waaye nga gis boo xam ne day sëgg di ginnaaw gi jóg li def nii dafa war a yemoo cër yëpp waaw ak tumaninatu wal ictidaal ictidaal mooy loolu kon mu ne bu fekkee saar yu mat na da ngay kabbaar fin xitaatika ci jamono bi ngay sippeeku maanaam dañuy ànd ñoom ñaar li rukon yi jëm ci rukon ba fa na nga sa ñaari loxo yi sa ñaari loxo yi nga teg ko ci sa bëtoon yi lañ koy jàpp am ñoo xam ne ci seen lupp yi waaye yooyu yëpp ay njuumte la sa ginnaaw gi tamit nga fexe mu yemoo sa bopp bi tamit doo ko yëkkati doo ko ñett mm-hmm. waaw doo sëgg am na ñoo xam dañuy sëgg ba seen bopp yu mel luy dem laali suuf waaw yooyu yëpp bokk na ci ñàkk dégg fiq euh, watu jaaf yi nga yërale ba tey bi dab ay ci sa ñaari mm-hmm. pëdëg yi an jan bayka walis sa ñaari legg yi mm-hmm. ñaari wet mooy ñaari legg rek legg mooy lii mooy wet yi maanaam booy julli góor warul julli ay pëdëgam di sës ci yaram dafa war a ubbeeku ni warul ubbeeku nag ubbeeku boobu maanaam lépp loo gis alwasatiya li ñuy tuddee diggu doomu daf caa baax mm-hmm. kon bul jël sa cër yi di ko sës ci sa yaram bi mukk loolu jigéen lañ koy sant waaye góor dañ ko na ubbeeku waaw na ubbeeku ba du ba du bu mu ëpp waaye na yem rek mm-hmm. lépp loo gis lu yem lañ ca santaane mm-hmm. moo tax mu ne watu jaafi nga sorel nga yërale bu ñu waxee yërale mooy nga sorel bi dabaay ka ci sa ñaari pëdëg yi mooy euh, nu ñaari loxo yi fii nii mm-hmm. moo nekk fii waaw kay ci côté poxotaan yooyu mm-hmm. an jan bayka wali sa ñaari wet yi mooy sa ñaari léegi yi na ko sori mm-hmm. wata taqidu nga fas mooy nga fas yéene alxuduwa toroxlu bi zalika ci loolu ngay def mooy soril googu ngay soril sa ñaari mbagg yi ak dem googu ngay dem di rukon ak sujjóot yooyu yëpp jëf yooyu ngay jëf nga jublu ci toroxlul sa borom bi rukon ka moom lay firiwaat bi googu moom lay firi mu ne bi rukuuka ci sa rukoo bi wa sujuudika ak sa sujuud bi maanaam ci sa rukoo na nga soril sa ñaari mbagg yi ci sa sujuud bi tamit nanga nga sa pëdëg yi sa sa legg yi waaye jëf yooyu nga ngay jëf yooyu yëpp ngay jëf nag nga jublu ci toroxlul yàlla parce que hmm. sujood ak julli ak rukoo yooyu yëpp ne borom bi man sa jaam laa ku xeebu laa maa ngi ni toroxlu ci sa kanam hmm. wala tadoo bul woo bul ñaan woo الدعاء نيان موم لا يالا دي واخني ولا ترعوا مع الله مانام بولين نيان فوفو لول لا فاي فيري ولا ترعوا بول نيان في ركوعك تي سو ركوع بي واي وقل وقل ان شئت بولا صوبي سبحان ربي العظيم وبحمده تدنا ما سلك موي سيتالنا يالا تي لب لو خامتيني اك سوفي لا ولا اك بوكار لا ربي سما بروم العظيم باجي ماغ وبحمده ت مانكوي سانت تاميت waaw tudd na ma sell sama borom bu màgg bi bi xam di ak di ko sant mm-hmm. kon ci biir rukoo kenn du fa ñaan mm-hmm. moo yenn saa yi nga gis ay nit yuy ñëw di joxe ay ñaan di wax ne boo nga jàng nangam loolu bokkul ci fiqh lépp looy ñaan am na ay bërëb yoo xam dañ fa tere ku fa foofu lañ la sant te muy nga xam ne moom nga war mooy nga sàbbal sa borom mm-hmm. ci rukoo subhaana rabbil azim noonu nga koy defee kon rukoo kenn du fa ñaan am na ay bërëb yu ñaan dana la ko leeralal ci ci ci biir julli moom lay wax ne am na ay bërëb juróom-ñetti bërëb yoo xam ne ni tere nañ ko ku fa ñaan mm-hmm. loolu boo demee Cheikh Khalil rahimahullah mu ngi koy indi mm-hmm. mu ne duwaaw qabla qiraati ñaan njëkk ngay jàng wa baadal fatihati maanaam boo kabara xarmal ba pare njëkk ngay jàng fatiha nga ñaan fa jàngoon nañ ko ci ginnaaw loolu dañ koo sib dañ ko tere mm-hmm. baadal fatiha ba nga jàngee fatiha ba pare nga taxaw fa di fa ñaan dañ koo tere asnaiha ci digg ba digg faatiha nga fay ñaan dañ ko tere asnaay e suura digg saar ba nga jàng ba ci biir ngay ñaan dañ ko tere rokon bi nga rokon ngay ñaan dañ koo tere qabla tashahudin mooy njëkk ngay taaya nga ñaan dañ ko tere baada salaami imaamin gannaaw bu imaam sëlmalee yow sëlmaloo nga nekk fa di ñaan dañ ko tere tashahudi awali ci taaya bu njëkk ba nga nekk fa di ñaan dañ ko tere moo tax taaya bu njëkk ba kenn du fa ñaan booy ñaan ci taaya bu mujj bi boo taaya ba pare mën nga di ñaan nga ñaan lépp loo soxla ci sax dina njëkk ngay sëlmal foofu bërëbu ñaan kon juróom-ñetti bërëb yooyu dañuy tere ko fa ñaan dañ ko sib mu dal ci tek mu ne walaysa nekul fi daalika ci lolu moy sax googu ngay sax di wax subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tawqiitu tawqitu qawlin day talak ak wax tawqitu waqtin qawlin tawqiitu qawlin dayool ak wax tawqiit bi maanaa tahdid mooy limité wuñ la ne la ñaari yoon nga koy wax wala benn yoon nga koy wax doon de siiw nañuy wax nga koy wax ñetti yoon waaye bu la neexoon tamit boo ko waxee benn yoon nga sul bu la neexoon dem nga wax ko fukki yoon sëgg di wax fukki yoon l' rek mooy bu fekkee da ngaa jiite ay nit wala mu nekk julli farata mu bañ a xaabaaba bu dee naafila nag moom nga xam yow kese amul problème rawatina nit booy ay nit faaw nga nit ci biir nit ñooñu ku nekk fa dara warul ëpp donte warul am parax parax mhm. ko julli julli gu mat julli gu julli gu dëppoo ak julli bi sallallahu alayhi waaye mu nag mu tegu ci ak diggu dóomu mm. diine lislaam diine wasatiya mm. diine diggu dóomu bëggul ëppal bëggul manqué mu ne wala xatta day ak dayo fi lub si ca sax ga sax gi ngay sax ci rukon bi kenn du la wax ne la nii la fii fii ngay yem mm. waaye nag bu mu ëpp comme ni ñu ko waxee boo rukon nga ba pare su ma tarfaaw topp nga yëkkati rësaka sa bopp bi wa anta ta mbir moomu yow qaailun ngay aji wax lan ngay wax samia dégg na allahu yàlla liman xamidahu ca kaw ko sant su ma takkoo lu topp nga wax ndaxte yaa ngi koy sant ci suuf mu lay wane la yàlla day dégg alxafiyaat wal jihaad maanaam de al al ñu mu tuddati al ajhaar wal asraar maanaam yi ñuy biral ak yi nëbbu yëpp suñu borom subhaanahu wa taala dégg na ko donte ay junne yi junne yi nit ñoo nekk ci jàkka ji tamit di wax subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi ci suuf borom bi moom mu ngi leen dégg summa taqulu topp nga wax ba nga waxee sami allah liman hamidu ba pare nga wax allahuma yow buur rabbana suñu borom wala ka ñeel na la alhamdu cant nga wax allahuma rabbana wa laka alhamd in kunta boo nekkee wax daka yow kese waaye wala yaqulu waaw du wax sami rabbana wa laka alhamdu jooju al imaamu imaam wala yaqulu du wax ba tey al mamumu mamum sami allahu liman hamidu sami allahu liman hamidu kon imaam mooy wax sami allahu liman hamidu mamum wax allahuma rabbana wa laka alhamdu wa yaqulu dana wax allahuma rabbana wa laka alhamdu kon moom mamum lan lay wax bu fekkee dafa nekk ak imam allahuma rabbana wa lakal hamdu nga déggee ci ne bu dee ne yow kese nga da ngay wax sami allahu liman hamidu bu rek wax rabbana wa lakal hamdu bu fekkee nag da ngay julleeg imam imam mooy wax sami allahu liman hamidu maamuum yi wax rabbana wa lakal hamdu wa tastawi nga yemoo qaiman di aji taxaw mutmainan di aji dal mutarasilan di aji sax mooy ba nga jógewee ci rukoo bi nga jógaat nag taxaw temm ba yemoo waaye doo fa jógee rek si géegoo dalagoo sax gaaw a rukk su jóotewaat déedéet ngay taxaw ba yemoo mu tara si leen ngay aji sax ci taxaw ba mm-hmm. ñëpp xam ne taxaw nga su ma tëx wi topp nga daanu nag mooy nga jubali ji yooru wàcci ren di aji sujjóot laa tajlis bul toog nag xam nga foofu maanaam boo jógee ci rukon bi ba taxaw nee na nga daal di wàcc dem di sujooti foofu nag dafa wax ne booy dem di sujooti bul toog mooy bul wàcc sa bët oom yi lan ngay def mooy da ngay dem wàcc directement sa loxo yi foofu dafa am solo maanaam foofu ci madame yi dañuy wax ne boo dem di sujooti sa loxo yi ne njëkk laal suuf sa bët om yi bu mu jiitu suuf danañ leeral tuuti ci kanam incha allah mu ne laa tajlis bul toog am na ñoo xam ne dañuy teg seen bët oom yi ba pare xam nga toog nga door a nag sujjóot léegi foofu dafa am wuute bu fi am ci benn xadis boo xam ne ni lii boroom mu tëddati li ñu tuddee al maqlub ci xadis ñëw na ci kii ibdaalu raawin maa bi raawin qismu wa qalbu isnaadin li matnin qismu li ko boroom boroom kii nu mu tëddati ni ko borom xam-xam bi indee ci ci borom xam-xamu xadis bi indee muy wane ne am na lu ñuy tuddee xalbul xalbul isnaad am lu ñuy tuddee xalbul matn léegi borom xam-xam yi dañoo wax ne xadis boobu nga xam ne yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rot ci xadis yonentam bi ne laa yabruqu kama yabruqu lbairu wal yadau yadayhi wal yadau yadayhi qablu ala al ard aw kama qaal yaakaar naa bu fekkee jumma ci xadis bi li mu wax mooy nit ki buy julli bu mu góor comme ni gëlëm di goore léegi nag mu daal di cay teg ne wala yadaru yedey xabl na teg ñaari loxoom ci njëlbéen alal ard ci kaw suuf léegi borom xam-xam yenn yi ne xadis bii dafa am li ñuy tuddee xalbul xalbul matn maanaam wëlbati matn bi ndaxte bu ñu waxee ne gëlëm nit ki buy julli bu mu góor ni gëlëm di góore bu mu góor ni gëlëm di góore ba pare mu tegaat ci ne na njëkk teg ñaari loxoom yi loolu kon xadis bi ñaari yooyu am nañ problème parce que gëléem buy goor bu mu góor ni gëléem di góoree ba pare mu ne na teg ñaari loxoom yi gëléem buy góor la muy njëkk def mooy teg ñaari loxoom yi ñaari loxo yi gëléem mooy ñaari bëti om mooy mooy ñaari tànki kanam mm-hmm. mooy ñaari tànki kanam yi moom la ñuy tuddee ñaari bëti omam te ci njëlbéenu xadis bi daf ne bu mu góor ni gëléem di góore te gëléem buy góor ay loxoom lay njëkk a jiital mm-hmm. kon xadis bi commencement bi ak fin bi dañoo wuute mm-hmm. bul góor ni gëléem di góore ba pare mu ne la njëkk la teg sa ñaari bëti oom te gëléem buy góor ñaari bëti oom lay góore ñu ne kon mm-hmm. xadis boobu dafa am lu ñuy tuddee xalbul matni kon comme xadis bi daf laa wax ne bul góor ni gëléem di góoree kon la ca doon tegu mooy wal yadau rukubatayhi min qablu kon la ca la koy firi mooy na teg ñaari bëti oomam mm-hmm. fa mu def yedde yi ñaari loxoom mm-hmm. waru faa teg waaye ñaari bëti oomam mm-hmm. kon mooy noonu la gëléem di góore looloo tax borom xam yi di ne hadis boobu dafa am lu ñuy tuddee xalbul mat na léegi nag gëléem buy góor moom na muy góoree mooy li jiitu mooy mu teg ñaari loxoom comme yow dañ laa wax ne la bul bul booy julli bul wàcc comme ni gëléem di wàccee kon bu boobaa lañ lay sant mooy sa bëti oom yi ne njëkk a tegu ci suuf kon loolu problème boobu moo am ci xadis yi borom xam-xam yi wax li borom xam-xam yi wax li moo tax ñenn ñi dañuy jàpp ne li jiitu comme ni madame Malick fii nga dañ lay wax ne la la jiitu mooy na nga njëkk a teg sa ñaari loxo ñoom ci xadis lañ jël boo jóg tamit na sa bëti oom yi njëkk ñenn ñi ne ba tey foofu noonu comme li yonent bi saa salaam wax mooy booy jóg lay jiitu njëkk a jóg mooy sa loxo yi ñooy njëkk a jóg mm-hmm. maanaam yow safaanab gileem ngay def te demoon ci vidéo nga xool dañ daan la gëléem buy goor day njëkk lay jiitu mooy tànk kanam yi mooy jiitu buy jóg tamit tànk ginnaaw yi ñoo njëkk jóg kon loolu moo am ci diggante masala boobu euh, ci wàllu wàllu wàllu wàllu sujjóot moom lay wax ne summa summa tasjud mhm. léegi moom lay wax ne summa tasjud topp nga sujjóot mhm. watu kabbiru nga kabbaar fi n xitaatika ci sippeeku mhm. li sujjóot yi jëm ci sujjóot bi fatu makkinu nga saxal ba tey jëm xëtëka sa jëbi wa am faka ak sa bakkan bi minal ardi ci suuf si watu baashiru nga jonjoog bi ka fayka ci sa ñaari tenq yi al arda suuf si baasitan mbir moom ngay aji tàllal yedee ka sa ñaari loxo mustawiyatee ni ñii ñaari way tolloo ñi waari way yemoo ilal qiblati jëm qibla tajaaluhuma nga def leen ñoom ñaar xalwa udunayka fa tollook sa ñaari nopp yi aw duna zalika wala lu ko yées rek wa kullu zalika bu mucc yooyu maanaam yooyu yëpp waasi on lu dagan la an annaka lu dul na yow nag laa taftarishu doo lal ziraayika sa ñaari xasabu fil ardi ci suuf si wala tadummu doo tàpp addu dayka sa ñaari illaa jëm jën baykay jëm ci sa ñaari legg mooy sa ñaari wet walakin waaye tu jannixu da ngay soril da ngay yërale ma ci ñoom ñaar mooy sa ñaari wet yooyu maanaam sa ñaari mbagg yi nga jërale soril ko ñaari wet yi mm. wasatan tajnihan ak yërale wasatan gu digg dóomu mm. li muy wax fii mooy boo sujjootee nee na na nga sëpp sa jébi ak sa bakkan mm-hmm. ñoom ñaar nit ñu laal suuf mm-hmm. sa ñaari tenq yi nga teg ko ci suuf si mm-hmm. tàllal sa ñaari loxo yi nag am na ñoo xam ne léeg-léeg bu ñu sujjootee teg seen loxo yi nii def nii waaye sa loxo yi dafa war a tàllalu jub xibla am na ñoo xam ne nii lañuy def ñu kenn xamul kon nañ jubale xibla ñëw ba tolloog ñaari nopp yi wala bu ko yées tamit na ko yées tuuti rek mu ne ñaari boo ci def baax léegi nag mu ne la buy julli sax xasa buy lii am na ñoo xam ne bu ñu sujjootee ci suuf lañ koy teg waaw te lii rek moo war a tegu suuf lii léegi mu ne nag boo ko defee nga teg sa ñaari loxo yi ñu tolloog sa ñaari nopp yi wala lu ko yées tuuti mu ne nag sa xasabu yi euh, sa loxo bu mu bu ko lal ci suuf si hmm. sa ñaari pëdëg yi tamit mu ne bu ko tàpp ci sa wet yi maanaam na nga ko yërale moom lay wax nag walakin waaye tu jannixu da ngay yërale bihimaa ci ñoom ñaar taj niixaan ak yërale wasatan bu digg doomu comme ni ko waxee mm-hmm. bu ko yërale ba nga xam ne ñi den la yow duñ mën a duñ mën a kii mën nga leen lor waaw lépp lu yem lañ ci jublu mm-hmm. wa takoonu dana dana nekk rijlaaka sa ñaari tànk fii sujoodi ko ci sa sujood bi mm-hmm. qaayimatay ni di ñaari way taxaw wa butuunu ibhaamayhima biir ñaari baaraamu ndey tànkee ilal ard jëm suuf kon boo sujoodee sa biir ñaar fii souf lay samp fi moy samp toujours waaye pas ni comme ñen ni nu subee da nga xam bitigi moy gi bir wa taqulu nga wax in shi'ta bula sobe fi sujudi sujuudika ci sa sujuud bi subhanaka tudd na ma sa sa rabbi sama borom zalamtu tooñ nafsi sama bop wa amiltu jefna naa suu an ñaawteef faxfir lii yal nga ma jegal aw ghayra zalika wala lenen wala aw ghayra zalika wala lulul ñaan gi sa in shi'ta bula sobe waaw bu la neexee nga ne subhaana rabbi al ala te loolu rot na ci xadis nga wax ko ñetti yoon wala lu ëpp loolu wala nga ne subhaana rabbi subhaanaka rabbi inni zalamtu subhaanaka rabbi zalamtu nafsi wa amil son dafin wa tadoo nga ñaan nag fi sujjóoti ci sujjóot bi si tawu la sol kon bërëb boobu noonu bokk na ci bërëb yi ñu mayee koo xam ne mën na faa ñaan boo sujjóotee moom mën nga ñaan lu la neex ci àdduna wala walaysa nekkul li tuuli daalika ñeel guddaay ak loolu wala yàggaay ak loolu waxtun aw waxtu wa aqallu gën caa néew daal an tatmainna mooy mooy mu dal mafaasilu ka say cër mm-hmm. ba sa cër yëpp dal mm-hmm. muta tamakkinen muy aji sax mm-hmm. waaw su ma tarfaw topp nga yëkkati rësaka sa bopp bi bi takbiiri ànd ak kabbaar fa tajlisu nga toog mooy nga booy yëkkati ko nga wax allahu akbar fa tajlisu nga fa nga lem sa sa yusra bu càmmoñ ba fii julusi ka ci sa toogaay ba sa ni ci diggante ñaari sujuud yi mhm. wa tansibu nga samp alyumna bu ndeyjoor ba mhm. wa butuunu asaabiiha asaabiiha te biir baarami tànk ya mhm. ilal ardi jëm suuf biir baarami tànk ya ilal ardi jëm suuf wa tarfaw nga yëkkati yadayka sa ñaari loxo anil ardi wali suuf nga teg ko ci sa kaw ñaari bëti li mu wax foofu mooy daf ne la boo siggee ci ruqoo bi ci sujood bi da ngay wax allahu akbar ba pare nga toog ba nga toogee nga lem sa tànk càmmoñ fi juloo si ko bay na sa jëteen lem bi mën naa nekk nii nga lem ko nii lem ko nii ba pare tànk bi def nii biir gi nii mm-hmm. fii day wala nga def ko nii am na ñuy def nii maanaam koy lem moom lay wax ne fa fa tajlisu nga toog fa tus nii nga lem rijjle ko sa tànk al yusra bu càmmoñ ba mm-hmm. fii juloo si ko ci sa toogaay ba bay na sa jëteen nii ci diggante ñaari sujjóot ya wa tansibu nga samp al yumna tànkab ndeyjoor ba wa butuunu asaabiha te biir baaroomi tànki ndeyjoor ba ilal ardi mu jëm suuf ba tarfaw nga yëkkati ya day ko sa ñaari loxo alal ardi walis suuf sa alaa ko ba day ko ci sa kaw ñaari bëti oom yi nga teg ko ca tas tasjudu topp nga sujuud a saaniyata sujuudu ñaareel kama faalta comme ni nga ko defee woon awalan ca njël bi summa mu topp nga jóg minal ardi tukkee ci suuf sa kama anta comme yow euh, kama anta comme ni nga xamee ne yow mu'tamidan nga mu'tamidan mhm. su ma taxaw mu topp nga jóg euh, bàyyee ko mel abdi tukkee ci suuf si kama anta comme ni ki nga xam ne yow mu'tamidan nga ay sukkandiku ala yadayka ci sa ñaari loxo mhm. maanaam ba ngay jóg comme mooy li waxoon léegi nii mhm. maanaam da sukkandiku ci ñaari ñoo xam ne bu ñuy jóg seen bëtoom yi mooy ñaari loxo yi mooy njëkk a jóg bëtoom yi daal di ciy tegu fii loolu lay wax maanaam da sukkandiku sa bëtoom yi mooy njëkk jóg nga sukkandiku ci sa am ñoo xam ne dañuy yëkkati seen ñaari loxo yi ba pare bëti om yi mooy mujj a jóg mm-hmm. moom la wax nag kama anta comme ni ki nga xam ne yow mu tamit den aji sukkandiku nga ala yadayka ci sa ñaari loxo laa tarjiu doo dellu mm-hmm. ma waxoon léegi li taquma ngir nga jóg min ci toogaay mm-hmm. walakin waaye kama zakartu comme ni ma tuddee woon la ka ñeel zakartu comme ni ma ko tuddee woon la ka mooy foofu doo jógaat di toog parce que am na ñeneen ñoo xam ne dañuy def dañuy tuddee jalsatul istiraha nga xam ne borom xam-xam yi dañ cee wuute mooy ci ñaareelu boo bayee ko ci maanaam julli nga première rakka ba pare jamono bi ngay jugee ci première rakka pour dem ci deuxième rakka ak jamono bi ngay jugee ci ñetteelu rakka pour dem ci ñetteelu rakka foofu dafa am borom xam-xam yi dañoo wuute ci foofu ndax bi nga jugee ci rakka ci sujoot bi pour yëkkati ko waat taxaw ndax da ngaa war a toog door a wala waroo toog loolu borom xam-xam yi indi nañ ci ak wuute bu bu yaatu yaatu moom nag fii eh, borom imaam Ibn Abi Zayd dafay wax ne foofu moom doo toog. Mm-hmm. moom lay wax ne su ma taxaw waaw walakin waaye commencé ko comme ni ma tuddee woon laka ñeen la watu kabiru da ngay kabaar nag fi xaali xiyaamika ci sa jamonoy jóg jamono bi ngay jóg da ngay kabaaraat su ma taqarawu topp nga jàng kama xara te comme ni nga jàng woon fil ula ca rakaa bu njëkk ba maanaam lu toll noonu aw doona zalik wala lu ko gën a suufe tuuti aw doona zalik wala lu ko yées mm-hmm. wala yées loola wa tafaalu da nga def misle dalika comme noonu mu la ko waxee sawaan muy way maanaam comme ni nga defee woon ci bu njëkk ba rek mhm. noonu nga ko war a defaate xeyra mhm. mhm. euh, na naka lu dul ne yow nag taqunutu da nga qunut baada rukoo yi gannaaw boo rukoo su jógee ci rukoo wa soobee tamit xanat xanatta nga qunut qabla rukoo yi njëkk ngay rukoo baada tamaamil xiraati gannaaw boo jàngee jàngee ba pare mooy ma nga jàngee fàtte ak saar ba pare bu la nexe nga rokon bu la nexe nga sigi ci rokon bi ñaar yi bo ci def baax na mu ne war wal xunóotu nak ba baatam al qunut moy ci li ñuy torox lu moy jaamu yàlla mom la al qur'an de wax qumu lillahi qanitin na ngeen jóg sax torox lu yàlla khashi'ina khadi'ina lillah wa man yaqnut min kun kon ñu mu ñëwee ci alquran mu ne qunut bi nak qunut yu bari la yu rot la euh yu tasaro ci madhab malik qunut dañ koy def ci jullit suba loolu ci madhab Malik da ngay dem ci yeneen madhab yi ñu ne ci jamono boo xamante ni mbas am na wala ay yeneen musiba am ci lañ koy faral def waaye ci madhab imam Malik jullit suba gu nekk danañ def li ñuy tuddee al xunóot xunóot nag yu bëree bëri rot na ci bokk na ci bii ni nga xam ne moom la ñuy jàng fii muy allahuma inna nastainuka yow suñu boroom inna naka ñun nastainuka ñi ngi sàkku sa ndimbal wa nastaxfiruka ñi ngi sàkku sa njéggal wa nu'minu danañu gëm bi ka ci yow wa natawakkilu danañ sukkandiku alayka ci yow hmm. wa naxnaaw danañ toroxlu la ka ñeel hmm. wa naxlaaw danañ futteeku tamit ci lépp lu dul yow jëm ci yow kese hmm. kon dañ nañ ci lépp wa natruku danañ bàyyi man képp koo xam ne yàkk furuka dana la weddi loolu la ñu tuddee almuwalaat la ñu tuddee alwala wal bara mooy booy méngoo nga méngoo jullit yi booy bañ nit tamit nga bañ ko ngir bañ gu mu bañ lislaam loolu mooy alwala wal bara comme ni mu ñëwee ci suuratul ونترك دا باي من يكفرك كيب كو خامي دا فلا ودي دي جامو كودول يو اللهم يبور اياك يو دون نعبد لا ني جام ولك يو ولك يو دون لا نيال ونصلي دنا نجولي تمن لك نيال ولك نيال نلا ولا نغني ونصلي دنا نجولي لك نيال ونسجد دنا ني سجود تمن لك نيال لا باتاي وإليك جيم تي يو دون نسا لا ني دوخ موي بو ني ووتي دارا تي يو لا ني دوخ جيم ونحفل دنا ني mooy dox dox bu gaaw ilayka jëm ci yow ba tey wa ilayka nasan wa ilayka naxfidu ba tey wa ka jëm ci yow dong nasan la ñuy dox wa naxfidu danañu gaaw tamit ilayka jëm ci yow narju ñu ngi yaakaar rahmataka sa yërmande wa naxaafu ñuy ragal ñu ngi ragal adabaka sa mbugal aljidda ma nga xamante ni mbugal mu mbugal mu mbugal mu tar la kon ñu ngi ragal sa mbugal mbugal mu nga xamante ne al maanaam may aji dëggu wala aljidda may aji tar al ji damay aji dëggu maanaam sa mbugal mi nga xam ne mbugal mu sax la mbugal mu nekk dëggal mm-hmm. kon nit ñaar yooyu lay taxaw li ñuy tuddee al xawf war raja mm-hmm. da ngay ragal euh, safara borom bi ak mbugalam waaye yaakaar yërmande mm-hmm. ñaar yooyu moom la ab jullit war a taxawee mu ne inna azabaka naka sa mbugal mulxiqun aji sax la wala aji yey la mulxiqun aji sax la aji yey la bil kaafirina ci yéeféeri ñi la weddi ñooñu yeewoon nañ sa mbugal su ma tafaalu topp nga def fi sujood bi wal julusi ak toogaay bi kama taqaddama comme nu mu jiitoo woon minal wasfi ca melal ga mm-hmm. léegi nag toogaay beeg comme melaloon na li ngay toogee mm-hmm. samp sa tànku ndeyjoor sa mm-hmm. tànku càmmooñ baaraam ndey bi ba tànku ndeyjoor bi biir ga féete féete féete féete suuf si yooyu jàngaloon na la ko moo tax bëggu cee dellu siwaat ngir gàttal moom lay wax Euh, su ma tafaalu topp nga def fi sujoodi ci sujood bi wala juloo si ak toogaay bi kama taqaddama comme nu mu jiite woon minel wasfi tukkee ca melal ga mu ne fa in jalasta fa ida jalasta boo toogee bayna baada sajdatayni gannaaw ñaari sujood ya nasabta nga samp rijla ka sa tànk alyumna bu ndeyjoor ba mm-hmm. wa butunu asaabiha te biir baaroomi tànki ndey ya maanaam biir baaroomi tànk ya ilal ardi jëm suuf mm-hmm. mu ne boo toogee ci diggante ñaari sujood yi nga samp sa tànku ndeyjoor bi sa tànku ndeyjoor bi te fekk ba nga ko sampee biir baarami tànk ndeyjoor yooyu moom day féete suuf waxoon na ko wa nga lem al yusra tànkab càmmoñ ba wa af dayta wa af nga yërale wa af nga daal di yërale hmm. euh, te mooy nga teg rek nga teg bi aliyetika ci sa njëkkeekaay hmm. mooy sa fi ngay toogee hmm. ilal ard mu jëm suuf boo toogee nag sa njëkkeekaay nga daal di koy teg suuf waaw comme ni ñu ko waxee nii xam ni ngay def toogee nii waaw nga xam ne sa njëkkeekaay yi mooy wa afdayta nga daal di tàllal wala nga yër nga nga nga tàllal nga teg bi àll yéete ko ci sa njëkkeekaay yi jëm suuf tax hmm. taqut boo bul toog alaa rijli ko ci sa tànk al bu càmmoñ bi comme ñenn ñi ñu koy def nii hmm. lii bu ci toog nag hmm. moo tax yenn borom xam dañuy wax ne bu dee ci taay bu njëkk bi moom nga def nii wala da ngay toog ci bi waaye bu dee ci taay bu mujj bi nga xam ne fi ngay jeexale moom sa njëkkeekaay yi fi ngay toogee moom day tegu ci suuf carrément Mm-hmm. moom la lay wax fii mu ne wala taqud bul toog ala rijlika ci sa tànk al yusra bu càmmoñ mm-hmm. wa in chita bu la soobee xaneyta nga lem al yumna mm-hmm. boo defee noonu maanaam nga tànk bi nii jëm ko samp donte ñu bëri mënuñu ko sama classe moom nii la ñuy mën <laughs> waaw la maanaam wa in chita bu la soobee xaneyta nga lem al yumna tànkam ndeyjoor ba fi intisaabiha ci sampum fa jaalta nga def jan ba bëhmiha maanaam wet jan ba bëhmiha mooy wet ak baaraamu ndey ba ilal ardi mu jëm suuf fa lu dagal la mooy nga def ko ni wet gi nii féetee suuf mooy li ma wax noonu nga xam ne ñu bëri moo gën a yomb ci ñoom parce que dalaa waxoon nga samp ko samp gi mooy nii féetee suuf bu la neexee tam nga def ko ni mu nekk wet mu ne yooyu lu dagal la su ma ta tata së su ma tata sëhadu topp nga taaya mu ne wa tashahudu taaya nag attaxiyaatu mooy baat yu sell yi lillaahi nañ yàlla attahiyaatu mooy badi yu màgg yu sell yi baat yu maggi yi attahiyaatu baat yu màgg yi li laay ñeel nañ yàlla azakiyaatu baat yu sell yi li laay ñeel nañ yàlla wala jëf yu sell yi tamit ñeel nañ yàlla attayibaatu baat yu teey li laay ñeel nañ yàlla mooy wax yu rafet yëpp yàlla moo ko moom assalawaatu julli juróom yi li laay ñeel nañ yàlla assalaamu alayka waaw yàlla nekk ci yow ayuha nabiyu yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi ak yërmande yàlla tam yàlla nekk ci wa barakaatu ay barkeem يلا نكونتين دي دوليكو دي دوتي السلام مچ علينا يلا نيك تي محمد وعلى عباد الله اك جامي يلا الصالحين ني باخنا الصالحين ني باخ على عباد الله الصالحين دا دوت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ما يسير ان الله لا امل بن كن ورا جام تي الا الله كل يلا وحده من دون لا شريك yeeyoowul ñiy bokkaale lowoo di ko ñeel maanaam wul ñu koy bokkaale wala nga ne laa sharika lahu déet aji bokkaale woo di ko ñeel mooy amul kenn ku tollook moom ci nguuram wala koo xamante ne ni am na dara ci li nga xamante ne ni mooy nguuram moo xam al rububiya la moo xam al la moo xam ay sifaatam mu ne waa ashhadu maa ngi seede anna muhammadan naka muhammad abduhu jaamam la wa rasuluhu tey ndaw te loolu mooy boo seedee ne ashhadu anna muhammadan loolu dafa am lu muy tekki mooy yow sa diine ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga koy jëlee parce que mooy rasulullah mu ne fa in sallamta boo sëlmalee nag baada hada gannaaw lii ajisa aka doy na la boo waxee lii nga daal di sëlmal boobaa loolu ba tey doy na la mu ne wa mimma bokk na ci la nga xam ne taziduhu da nga ko dolli inchi te bu la neexee mooy wa ashhadu anna alladi jaa bihi muhammadun xaqun wa anna aljannata xaqun mu ne maa ngi seede ne anna alladi naka la nga xam ne jaa andi na bii ci moom wala jaa dikkee na bii ci moom muhammadun muhammad xaqun dëgg wa anna aljannata naka aljanna xaqun dëgg la wa anna naara naka safara xaqun dëgg la wa anna saata naka bisum penc aatiyatun aji dikk la laa rayba amul benn sikk fiha laa rayba déet xeetu sikk fiha di ci nekk wa anna allah naka yàlla yabaasu dana dekkal man ña nga xam ne fil qubuur yi nekk nañ ci biir bàmmeel yi allahumma yow buur salli jullil wala yàlla nga julli ala muhammadin ci muhammad wa ala ali muhammadin ak ñooñ muhammad warham yàlla nga yërëm muhammadan muhammad wa ala muhammadin ak ñooñ muhammad wa barik yàlla nga barkeel ala muhammadin ci muhammad وعلى آل محمد أن محمد كما صليت كم نيغا جولي ورحمت كم نيغا يرمي على إبراهيم وباركت كم نيغا بركي على إبراهيم جسم إمام إبراهيم وعلى آل إبراهيم أكنين إبراهيم في العالمين تمن في جمنهم إنك نك يو حميد كن سنتنغ ولا في العالمين تمن في رك إنك نك يو حميد كن سنتنغ مجيد كتدنغ اللهم يبور صلي يلنغ جل على ملائكتك ala malaikatika ci sa malaayika yi wal muqarrabin ak ñuñ jegeel ñi wa ala ambiyaayika ak say yonent wal ci say ñuñ solo ndax am na ñoo xam ne jox nañ leen xam-xamu nubuwa ku mel ni aadama waaye yónnuñ ko fenn wa ala ambiyaayika ak sa ñuñ solo wal mursalin ak sa ñuñ yónni wa ala ahli taatika ak ñuñ ak ñuñ topp sa mooy ñi nga xam ne dañ lay topp muy jullit yi ajmaina mboole seen allahuma yow buur fir lii yal nga ma jéggal wali walidaya ak samay ñaari wayjur wali ay matina ak suñuy njiit mooy suñuy boroomi xam-xam wali man ak ña nga xam ne wali man ak ñeel ña nga xam ne sabaqanaa jiitu nañ ñu bil imaani ci gëm yàlla comme ni ñu ko yàlla jàngale woon ci suuratul xashr mooy ñiy ñaanal ñi nga xam ne jiitu nañu bil imaani ñi nga xam ne jiitu nañu bil imaani ci gëm yàlla maxfiratan njéggal azman bu dogu mooy boo xamante ni laa ginan lahu an maxfiratika waaw azman ngay aji dogu mooy njéggal boo xam ne daal maanaam mënuñ koo doyloo mm. waaw maanaam njéggal goo xam ne daal njéggal gu wér a wér rek njéggal gu dogu mooy njéggal gu sax mm. njéggal gu sax allahuma yow bur inna inni naka man ko maa ngi lay ñaan min kulli xeyrin ci bépp yiw saalaka nga xam ne ñaan na la min wu tukkee ci moom muhammadun muhammad nabi yu sa yonent wa awuzu maa ngi muslu bi ci yow min kulli min kulli charrin ci bépp ay waaw mm. min kulli charrin ci bépp ay istaazaka nga xam ne muslu na la ci ay woo minu tukkee ci moom istaazaka muslu na la minu tukkee ci ay woo muhammadun muhammad nabiyu ko sab yonent allahuma yow buur ixfir la ñu jiital ci ay xam ne ni ko mooy bakkaar yi ñu war a def si wa maa asrar naa ak liñ nëbb ci ay ñaawteef nga xam ne yow rek yaa ko xam wa maa alan naa ak a xam bii min naa ci ñun ak bàkkaar yi nga xam ne sax amaan na def nañ ko te ñun xamuñu ko yow yaa ñu ko gën a xam rabbana yow suñu borom aatina yal nga ñu may fi dunia ci àdduna xasanatan aw yiw wa fi alaxirati ak alaxirati xasanatan mbaax waaw wax nañ ne bu ñu waxee xasana bi maanaam al alimu wal amalu bi mooy yal nga ñu defal xam-xam ba pare may ñu ñuy jëfee ko wala yal nga ñu defal sax xasanatan am na ñu ne mooy aljanna wala am na ñu ne mooy soxna su baax al zawjatu al zawjatu al xasana moo tax mu ne allahuma rabbana yow suñu borom aatina yàlla mu ñu defal ci dunia ci àdduna xasanatan yiw yiw moom lépp ngi ci waaw wa fi laaxirati ci àllaaxira xam-xam ak jëfee lépp wa fi laaxirati ci àllaaxira xasanatan yiw wa qinaa yàlla nga fegeel ñu adaaba naari mbugalam safara wa awuzu maa ngi muslu bi ka ci yow mooy maa ngi làqu ci yow min fitnatil mahya ci fitnaay dund wal mamaati ak fitnaay dee mooy gàllankoor yi nga xam ne ci jamono yu dund lay am ak fitna yi nga xam ne ci jamono bu ma dee lay am te fitnatul mamaati mooy yi nga xam ne ni bokk na ca laaj yi koy malaayka yi di laaj muy fitnaay bàmmeel te yooyu dina ci ñëw euh, wala yi nga xamante ne ni mooy gàllankoor nit ki mm-hmm. ba nit ki bu demee bay waaj a dee mm-hmm. maanaam mu waccee mbaax gi mu nekkoon mm-hmm. dem bay waaj a dee fitnatul mamaat maanaam mbaax gi nit ki nekkoon muy seede ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mën na koo waccee leneen hmm. kon yàlla ñu yàlla musal ci loolu ci fitnaay dee bu ñu demee ba dee métti ci ñun ba tax mbaax yooyu ñu daan wax maanaam ñu koy remplacer wax yu ñaaw hmm. waaw yàlla ñu ci yàlla musal hmm. waaw may ñu mujj gu rafet moo tax mu ne wa awudu maa ngi làqu bi kat ci yow min fitnatil mahyaa ci fitnaay dund wal mamaati ak fitnaay dee wa min fitnatil qabri ak ci fitnaay bàmmeel te mooy laaju malaayika ya wa min fitnatil masiixi dajjaal ak fitnaay masiixi dajjaal masiixi dajjaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junjoon na ko nga xam ne day ñëw ci mujj jamonoom di réeral nit ñu di leen yóbbu ci kéeféer yal nañu yàlla musal ci ay musibaam mm-hmm. waaw al masih xam nga dafa amoon ku ñu tuddee masih Isa ibnu Maryam moom nag masih dajjal masih mi nga xam ne day réeralaate nga mm-hmm. xam ne mën na ñëw sax fu mu laal rek boo feebaroon boo defoon dara nga daal di wér mm-hmm. donc kooku jamono ji ku mel noonu bu ñëwoon senegal tey dana bëri ñu koy topp boo xam ne day fekk gumba ñëw laal ko mu wér noonu lay lay réeralee doomu aadama tax ni gëm ko bu ñëwee ne man yàlla la nit daal di koy topp kooku moom bu ñëwoon Sénégal yaakaar naa ne ñëpp dinañ ko topp mu wa min adabi naari ak ci mbugalam safara yàlla nañ ci yàlla musal wa suuil masiri ak mujj bu ñaaw yàlla nañ yàlla musal ci mujj bu ñaaw allahuma assalaamu alayka mucc yàlla nekk ci yow ayuha nabi yow yonentam bi sallallahu alayhi wa wa rahmatullahi ak yërmande yàlla wa barakaatu ak barkeem assalaamu mucc alayna yàlla nekk ci ñun wala ibadillahi salihina ak juliti yàlla yu baax yi su ma nga ne asalaamaaleykum taslimatan sëlmal waaxidatan bay benn an yaminika ci sa ndeyjoor taqsidu da nga jublu biha ca sëlmal ba mm-hmm. qubaalata wajhika njël sa xar kanam mm-hmm. mooy da nga naan ni asalaamu aleykum mm-hmm. loolu la ci nam njël sa xar mooy mooy wax asalaamu sa xar ngay jublu mooy penku bi wa tatayaamanu nga ndeyjooru bi ci sa bopp bi xaliil lu néew ba door a def ni nag aleykum ci sa ndeyjoor tuuti هكذا كم نون يفعل لا يفعل الإمام إمام والرجل أجور وحده ممدون لي ما مذهب الإمام مالك رحمه الله بين سلم من سلم ما السلام عليكم لقمنا دعى تامبلي جبل قبلة بوي السلام عليكم مطلعك سويت نديو لولو ما يلي برام رسالة جانغ لشي مذهب بي مني بانا فو والرجل وحده وأما المأموم يا خنا نين بفينا نين كم مأموم مديا آه. وأما المأموم دال مأموم فيسلم ودي سلم الممتمد واحدة benn sëlma hmm. yete yaa mënu de waahidatan benn hmm. yete waxagul benn sëlma rek waaye daf ne fa yusallimu dana sëlmal waahidatan benn boo xam ne hmm. yete yaa mënu dana ndeyjooru biyaa ca benn booba xalilan lu néew wa yaruddu day delloo nag uxra beneen alal imaam yi ci imaam maanaam day sëlmal benn sëlmal comme niñ ko waxee woon boo xam ne daf koy ndeyjooru ndànk moom tamit ba pare wa yusallimu wa du mu delloo uxra beneen sëlmal alal imaam yi ci imaam xubaalatuhu ca njëxam mooy ca xar kanam mm. yusiru day junji bihaa ca salmal ba ilay jëm ci moom mm. mooy ci imam mm. wa du mu delloo alaaman ca ka nga xam ne kaana nekk na sallama doon salmal alay ci moom ala yasaarihi ci càmmoñam bu fekkee am na ko koo féete woon càmmoñ tamit mu daal di salmal comme da nga gis ne moom dana salmal daanaka ñetti yoon mm-hmm. fa in lam yakun dem nekkut nag sallama di salmal alay ca moom ahadun kenn mm-hmm. bu fekkee ci càmmoñam kenn nekku fa mm-hmm. lam yarudda du delloo ala yasaarihi ci càmmoñam chey an dara ليعنا من كريم الفوق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم